مثل أنس برأ القدوس من كل دنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نفعتني وقدت لي إحسانا ورثت في مدح النبي حسانا لحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير سول ziar bi nga xam ne at mu jot waa Daaru Salaam dañ koy amal ci xalifa général des Mourides def nañ ko ci altine ji sëriñ maam Cheikh ant ànd ak mbooleem rakkam yi ak cheikh yi nga xam ne dañoo nekk ci Daaru Salaam ñu ñëw ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir doon ko jébbal addiya ji mu toll ci 172 millions de francs CFA ni nga xam ne saasu ne noonu lañ koy defee rek. ñu jébbal ko sëriñ bi daal di ci boole alimet ngir wan sëriñ bi ne addiya yi ñoom pare nañ ci ginnaaw bu ñu ko ko joxee te sëriñ bi mën na ci def lépp lu ko soob. ginnaaw bi kilifa yi nuyoo ziyaare jébbal nañ sëñ bi addiya ji ginnaaw bi nag sëriñ maam Cheikh Anta am na kàdd yoo xam ne yëkkati ko fa. tàmbalee ci kër sëriñ Mouhamadul Mamoun jaar ci kër Alhaji sëriñ Takko jaar ci kër sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar jaar ci kër Alhaji Dam Mbacke. jaar ci kër Serigne Ibra su Thiam jaar ci kër Alaaji Sam jaar ci kër Alaaji Moustapha Caytu jaar ci kër Serigne Abdou Gora jaar ci kër Serigne Cheikh Thioro ne góor ñi ak jigéen ñi Mbàkke seeni njaboot ñoom ñépp teew na kenn ku ci nekk def nga la nga man ngir yàlla ngir yàlla ci gaal gi ci gaal gi ñëw jébbal na ko ak almet ji na ko sëriñ Modou Mamoun daan defe sëriñ Modou Rokhaya daan ko defe di ko ànd ak i baayam sëriñ Amidoun di ko def di ko ànd ak ay waajuram sëriñ Asgeri di ko def di ko ànd ak ay waajuram ba tey jii sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili jiite ko ak njabootam gii ak alhaaji Mor ma nekk gaawaan ak mbooleem njabootu borom gaawaan gépp ñoom ñi ngi takkaat seen laxasaay takkaatu buum ci seen baat na ko maam Cheikh Anta defe woon na ko mbàkk yow mii sëriñ Tuubaa ne te bàyyi leen ak suñu mbir mu bàyyi la ko amul ak mbirum taalibe yépp ne sëriñ si jàmbaar lañu lool Mbàkke waaye taalibe yi kenn gënu leen di jàmbaar luñ ci def rek ne taalibe yee kon ñu ñaanal taalibe yi ba seeni sëriñ ak seen ak seeni sëriñ ba luñ def ren bu déwénee ñu mën a def fukkam ne liñ jàng ci alquran nee li mu ci xasaay moo gaal gi lañu boole moo gaal gi lañu boole jébbal na ko jébbal na ci ñaanal nee nga yàgg fi lool lool te te te nee lépp ànd ak wér Mbàkke suñ borom mën na ko ci barkeb Serigne Touba mi ngay liggéeyal Serigne Touba mi ngay liggéeyal moom it mën na ko lii nag nee jotiwut ak li ñu war a def ci université bi dara daara di nga xam ne dañ koo tàmbali nee fas nañ yéene kenn duñ ci man ñun waa Darou Salaam Serigne Cheikh Anta ci kàddu ay waajuram nee na ñu ngi yeesalaat njëbbal gi la ko dalee ci Serigne Mor Fati nee ñu ngi yeesalaat ñun ñëpp suñu njëbbal na ko maam Cheikh Anta defoon ci Serigne Touba te nga mat ko sëkk mag nee ñun du ñu ay taalibe ay jaam jaamaati eh, Serigne Touba foofu rek lañ nekk Mbacke nee jërëjëfati Mbacke am nañ tawfeex bu baax. ginnaaw kàddu yi Serigne Cheikh Anta yooyu am na kàddu yoo xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir. xalifa général des Mourides yëkkati na ko ci jataay bi di rafetluwaat bu baax a baax jëf ji nga xam ne at mu jot waa Daaru Salaam daañu ko jëf waaye la ca jiitu mooy ci kër gii ngeen bàyyi ko yàlla boole ko ci yéen waa Daaru suñ boroom boole na ko ci yéen lu jiitu tey kon foofee la jóge nee na loolu la njëkk a sant nag ci taxawaay bi bu baax a baax. nee na di sant nag ci taxawaay bi bu baax a baax. ndax taxawaay maam Cheikh Anta boobee. ba mu ci tàmbalee ba ci jataay bii. nee na ngi yeesal ak cantam. di ci yeesal ak jaayanteem. di ci yeesal wëllëreem ak kër gi. bu baax a baax di sant bu baax a baax a baax nee na kon daa mel ne digganteem ak kër gi léppam ak cant te foofee la jógee nee na yëg na taxawaay bi bu baax baax nee na taxawaayu kër maam Cheikh Anta kenn umpaliwu ko ku bokk ci Serigne Touba mais ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudd di tudd Serigne Touba ak mboolem taalibe bi xam nañ taxawaayu maam Cheikh xam taxawaay bi it boobee ba léegi mësta sooxe na mu daan doxe rek lay doxe ba agsi ci jotaay bii nee na kon loolu xamul lu mu ci feeñale mbégam xanaa mu ne li ko gën a ñor rek moo di ak jaayanteem ak sëriñ bi na kon mi ngi leen di seeral ne ci seen jotaay bii ci li mu weesu lépp mi ngi fas yéene gën a yeesal ak jaayanteem fas yéene gën a fettali ak laxasaayam lépp it fas ko yéene ànd ak yéen rek di ñaan suñu borom bu baax a baax a baax tawfeex ju réy nga xam ne moom la maam Cheikh amoon te mi ngi ñaan ci baaxu sëriñ bi ak ngëneeli sëriñ bi ak daraje sëriñ bi mi ngi ñaan tawfeex joojee di yokku di yokku di yokku ba bis lañ jóg nee na mi ngi ñaan bu baax njaboot bi mboolem njabootu maam Cheikh nee na mi ngi ñaan su borom gën leen sàmm gën leen a aar gën leen a yàgg itam gën leen a wéral gën leen a kàttanal suñu borom itam di leen gën a gàttal ak taw benn sëriñ seen lépp di gën a yomb seen lépp di gën a yéwén seen lépp di gën a barkeel lépp wëlbati ko waat delluwaat ci ndamu sëriñ nee na li ne ci xolam mënu ko wax waaye kàddu yi rek la ci mën a génne xolam set na bu baax a baax xelam dal na bu baax a baax yaakaaram dolli ko na bu baax a baax aw fitam gën naa rëy parce que yéen ànd ak yéen rek jërë ngeen jëf incha allah lii mooy ziar bi nga xam ne moom lañ leen jëlale woon ci waa Daaru Salaam ñu ñëwoon ci xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir daaw ñu indi woon 150 millions de francs CFA ren ji ci atum 2019 bi ñu indi lu toll ci 172 millions de francs CFA. bismillahi fii nii ak daala yàlla Thank you.